alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi noo ngi sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala di julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu ca nuyub lislaam muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi subhaanahu wa taala mu boole nu defal jàmm ci àdduna defal ñu ko yowmal qiyaam defal ko mboolem jullit mbokk yi dellu siwaat nañ ci sun fàttali yi ni faral di amal ci talaata ju jot nu di ko amalee ci groupe bi di sàkku xam-xam talaata yi sunu fàttali <clears throat> mi ngi daan jëm ci téere bi ni wax xisnul muslim nga xam ne ay azkar ñoo ci nekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam daan ko jëfandikoo digaloon ko saxaaba yi it jot nañ cee def ay fàttali ci ay azkaar yu jàll ba yamoon ci zikkar yi nga xam ni moom la nit ki di def bu jullee ba àgg ca taaya gu mujj ba taaya ba àggal lu jiitu muy sëlmal am na ñeent yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam digaloon na ko saxaaba yi xeet wi yépp ñu di ca muslu boobu zikkar lañ mujj fàttali tey nag ñu bëgg a dugg incha allahu taala ci zikkar yi nga xam ni nit ki mi ngi koy def ginnaaw bu sëlmalee ci julli al adkaaru baada salaami min assalaa zikkar yi nga xam ni nit ki bu jullee ba noppi war na koo def doonte bari na nag waaye dañ ci jël tey benn fàttali ko ak yenn leeral incha allahu taala ba benen talata ak jàmm dhikr bi nga xamni bu nu selmale ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko dan def digel ko sahaba yek xet bi yépp li mu wax ginaaw bu selmale ba noppi manam julli ba àggal ba sëlmal day wax astaghfirullah ñet yon astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ñet yon مداري وخ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لولو لا ينتي صلى الله عليه وسلم دان وخ بدان سلم التجل بنبي ما بام تواتكو أستغفر الله لولو دانوكو وخ نتيون يون maanaam dana wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa dhal jalaali wal ikraam loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax bu daan julli ba noppi bokk na ca lam daan wax nee naa la bari na waaye nu jël ko benn benn nu firi ñaan gi li muy wax ba noppi doog a dugg ci yenn leeral yi insha allahu taala xam ngeen ni astaghfirullah mooy maa ngi jéggalu yàlla sunu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku fonkoon la di jéggalu yàlla fu mu mas a toll fu mu mas a fu ne mi ngi jéggalu sunu borom ba moom ci boppam sax ne woon na saxaaba yi man dey ci bés bi danaa tuub jéggalu sunu borom dellu ci moom lu ëpp téeméeri yoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ko def waaye nag digaloon ko ñépp nga xool fu mu masaana julle ba àggal dana jéggalu sunu borom ñetti yoon def na jëf ju baax jëf ju rafet julli nga xam ne lépp jàng la ak sàbbal sunu borom màggal yàlla sant yàlla tagg ko wane ak kenn borom bi toroxlu ci moom su jóot ba àggal la muy njëkk a wax mooy maa ngi jéggalu sunu borom maa ngi jéggalu sunu borom maa ngi jéggalu sunu borom loolu dana ko def ñetti yoon mu door a wax nag ni ko yow allahumma yow yàlla sunu borom xam nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam fu masaana toll mi ngi jéggalu yàlla waye fam mu masaana toll it mi ngi wane ak toroxlu ci kanam sunu borom tabaarak wa taala di wane ni mom amul dara lepp ci yalla la nek te ci mom la ko yaakaaree mo tax gannaaw bu mu jéggelo ba noppi day wax ni allahumma yow yalla sunu borom antas salam yow de yaay jamm yow de yaay jamm sa tur wi di jamm yow yaay jamm yow sunu borom ma ngi feddali yow ni yow yaay jamm te it yow yaay muccale yaay tax ba kenn du am problème yaay jàmmal ñëpp waaye it wa minka salaam doon gi nga doon jàmm it jàmm ci yow dongu lay jógee yow yaay jàmm yow sunu borom te jàmm ci yow rekk lay jóge te ci yow rekk lanu ko yaakaar jafe-jafe àdduna ki àllaaxira jàmm rekk lañ ci bëgg te yaa ko yor te ci yow lañ ko yaakaar mu ni ko nag tabarakta yow sun borom barkel nga barkeel nga sa lépp barke la yaa dal jalaali wal ikraam yow de yàlla sunu borom yow yaay ka nga xam ni ku woomal nga lool yow yaay ka nga xam ni ku màgg nga lool waaye yow yaay ku tedd ka lool mooy ku baax ka lool ba àgg fa ba mbaax yam yaay ku màgg ku kawe ka lool yaay ku tedd ka yaay ku tabe ka yow sunu borom kon nga dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu tëggee ñaan gi ginnaaw bi mu jéggalu sunu borom ñetti yoon xamal na ko ni ko yàlla yow yaay jàmm donte sunu borom xam na ko ba xamal ko yonent bi waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi feddalil sunu borom ni ko yow yaay jàmm te nangu naa ni yaay jàmm waaye nag doon gi ko doon jàmm ci yow rekk la jóge ci yow rekk lay jóge ci yow rekk la nu ko yaakaaree màgg nga barke nga kawe nga lool yow sunu borom baax nga tabe nga lool loolu li mu tekki moo yow sunu borom jàmm ji nga am te jóge ci yow yàlla nag ñu ci may noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee bu jullee ba àggal amul leneen lu muy def nag lu dul loolu xanaa ay ñaan yeneen yoo xam ne topp na ca te danañ ko fàttali ci kanam incha allahu taala mbokk yi nu fàttaliwaat ni léegoo léeg nga gis koo xam ne day julli ba àggal tàmbali di bind ci suuf si ak di wërale ay fi mu nekk yu mel noonu xool ndeyjoor xool càmmooñ xool kanam xool kaw xool suuf xoos tànku tànku ginnaaw ba tànku ndeyjoor bi xoos tànku càmmooñ bi def ay def defaan yu baree baree baree baree bare fekk na loolu yépp nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom ci boppam mësu koo xam te mësu koo def mësu koo jàngale yit lii la yonent bi jàngale te yonent bi alayhi salaatu li mu jàngale aw yiw dongo ci nekk te moo gën a yomb la ca des mboolem leneen lu waaye ji def lu wuuteeg lii du la wax mukk ni ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko jëlee xanaa ci keneen te nag loolu lu mat a bàyyi xel la mbokki jullit yi pour nu di ko wattandiko léegoo-léeg ndax xam ngeen sunu borom tabaraka wa taala ci alquran mi ngi ñuy loo di def lu juuyoog li yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni yàlla subhaanahu wa taala wax na ci alquran ni wa man yushaqiqi rasula min bacdi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi gayra sabili almuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira yàlla na ne képp koo xam ne juyoo na ak yonent bi sallallahu alayhi wa gannaaw ba mu ko wéree ni lii la yonent bi jàngale képp ku juyook yonent bi sallallahu alayhi gannaaw ba mu ko ni lii la yonent bi jàngale lii la yàlla bëgg waaye nag nga juyook moom def leneen la ca topp la nga xam ne yonent bi jàngalewu ko yàlla mu ni ah dañu lay bàyyeek loola rek yaa xam jëlal sa yëf waaye nag daanu la tàbbal jahannama bu yowmal qiyaame te sa mujj day ñaaw lool yàlla tagg ñi nga xam ne dañu yem ci li leen bi jàngal yàlla wax ci alquran ni falladina aamanu bihi wa azzaruuhu wa nasaruuhu wattabacu nuura alladi unzila maahu ulaika humul muflixuun yàlla mu ni ña nga xam ni gëm nañu yàlla gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàppale fonk ko lool diko dimbali diko taxaw ci bépp bor ba nopi nak top leer muy alquran ji nga xamni yàlla wàcce nako andak rasulullah top ndigal yi ci nek ak ndigal yi rasulullah yàlla neena na ñooñu day moy ña nga xamni ñu taxé lañ lolu mbokk yi nañ ko bàyyi xel bu baax baax yàlla waxat na ci alquran ni qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladina dalla sacyuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a yàlla mu ni xanaa du ngeen ñëw man xabaar leen ñi nga xam ne ñoo gën a perte ci la ñuy liggéey ñi nga xam ne ñu ngi liggéey di def ba noppi te ñoo gën a perte yàlla mu ni ña nga mooy ña nga xam ne dañoo sànq seenu dund adduna ci la nga xam ni kenn jàngalu leen ko jëlewuñ ko fenn kenn xëmu ko ba noppi nag ñoom dañuy foog ñi li ñuy def lu baax la wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa yàlla mu ni ñi nga xam ne dañuy def rekk te jëlewuñ ko fenn nag foog ni la ñuy def lu baax la te jëlewuñ ko ci rasulullah jëlewuñ ko ci alquranul karim yàlla mu nu ñooñu ñoo gën a perte yàlla nu ci yàlla musal yàlla it waxaat na ni wala in ittabata ahwaahum bada alladi jaaka min alilmi ilmi laka min allahi min waliyin wala nasir yàlla mu ni su fekkee da ngaa topp seen bànneex ñoom léegoo léeg nga dégg nit ñi la lii baax na boo ko defee lii nangam sangam te boo ko laajoon jëlewu ko ci yàlla jëlewu ko ci rasulullah yàlla mu ne nag soo toppee seen bànneex ginnaaw bi mu la wéree ni lii la yonent bi jàngale waaye nga bàyyi ko fi topp ñële lañ wax yàlla day nee na yowmal qiyaam doo am kenn ku la dimbale ci kanamu sunu borom te doo am kenn ku la fa taxaw mukk kon li gën a wóor mooy topp li ñu yonent bi jàngal sallallahu alayhi wa néew néew néew lu mu tuuti tuuti tuuti nu yem ca te bañ dugg ci yeneen ya ca des maanaam lépp loo xam ne nit a nga koy jëf ci diine te yonent bi jàngalewu ko loolu bidaa lañ koy tuddee bidaa nag léeg-léeg nit ñu wax ko wayefal ko lool te lu mat moytu la lu mat wattandiku la ndax yàlla sunu borom yonent bi alayhi salaatu wasalaam da cee wàccee lu baree bari ci ay xuppe ak i musiba bokk na ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis bu muslim solo nee na man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun nee na képp ku jëf ci diine ji ci loo xam ne ñun xamuñu ko ñun yonent bi ak samay saxaaba nee na sa jëf jooju kenn du ko accordé dañu la koy delloowaat dañu la koy xëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam it daan jàngale ni alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa irrachidin almahdiyina min baadi tamassaku biha wa addu alayha binnawajiz yonent bi dafa waxoon ni maa ngi leen di dénk ngeen jàpp ci sama sunna si ak sunnay sama saxaaba yii nga xam ni day ñu jub lañ tey jubal ci sama ginnaaw nee na ngeen jàpp lii ma leen jox da ngeen ko jàpp bu dëgër màtt ko ak seeni dëgëj ba mu dëgër bu leen ci kenn jëlee yonent bi teg ca ni wa iyaakum wa muhdasaatul umur maa ngi leen di tere nag ngeen jël lii nga xam ne dañ ko sos ci sama ginnaaw bu leen ko jël bàyyi leen ko ndax kat fa inna kullu muhdathatin bid'a lépp luñu sos ci diine te man xawma ko man rasulullah ak samay sahaba loolu xam ngeen ni bid'a la nee bid'a la waaye nag mu ni wa kullu bid'atin dalala nee bépp bid'a nag boo gis bu nekk réer dong la nee amul bid'a bu rafet amul bu jekk amul bu am solo ki mel noonu lépp bid'a rek réer la noonu la ko yonente bi alayhi salatu wasalaam doon jàngalee yàlla subhanahu wa taala it yàgg ñoo topp loo rasulullahi tonu yem ca moo tax yàlla di wax ci alquran ni wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu nee na lépp lu leen yonent bi ëndil na ngeen ko jël jàpp ko ci man la ko jëlee waaye lu mu tere lu nekk na ngeen ko wattandiku na ngeen ko daw te xam ni wax mu tere leen ko yàlla waxaat ci alquran ni فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يلا من نيغا خامني dañuy wuté ak yonent bi alayhi salatu wassalam ci lam leen digal ñoñu day nañu wattandiku lool ndax buñu ñu wul di wuté ak rasulullah ci lim leen digal fitna fitnay àdduna ak alakhirah dana leen dal danañ noor ci ak ci bidaa foog ne lu baax ci lañ nekk fekk baaxut mu jural leen musibay aduna jural leen musiba ëllëg yowmal qiyam muy mbugal mu metti ñu la ko yàlla waxee yal na nu ci yàlla musal musal ci mboolem jullit yàlla waxaat ci alquran ni لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يلا نينا يندي يننتبع عليه الصلاة والسلام دوين لين سك نجن جلكم ويسن روي واي نحكت روي واي برفت لدي دوين سك روي لينكو يم لين تيموم دونغو نونو لكو سنو بلام تبارك وتعالى وخي بني بغونا اندي لاي دانا يغ لول نوي وخ اي لاي وخمني دان نيو تري نيو ووتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم كون موكي نلين يم ci lu nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jangal lepp lu ñu jangal lu nek aw yu dongu la aw yu kep la te kep ku koy jëfé da nga gis ne lima alayhi salatu wassalam di jangal aw yu kep la kon nanu ci yam nanu ko doylo sekk ndax ci borom bi tabarak wa taala la ko jëlé nu wat ñaan gi mbokk yi yonent bi day wax astaghfirullah ñett yoon astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mu daal di ni allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa dal jalaali wal ikraam ma baamtu ko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa dal jalaali wal ikraam noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee waaye nag su fekkoon imaam nga yow bo selmale dang koy wax ñetti yoon ba nopi dogo a wëlbatiku sax hadis bi non la dikke hadis bi ñu leen jangal sax ci sawban lañ ko yalla nako yalla gëreem ab sahaba la hadis bi muslim moko solo neena yonent bi sudan julli ba noppal ba aggal ba aggal day wax li ñetti yoon daal di wëlbatiku ci mbolo mi su fekke nak mamumi la ñom dañu koy wax rek yam ci nañu nekkon daal di jublu ci lañ jublu won daal koy wax yem ca loola bu dee nag yaay jiite da ngay wax ñetti yoon astaghfirullah wax allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa dal jalaal wal ikram boo noppee dooga wëlbatiku nag janook mbooloo mi nga jiite woon noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee kon noo ngi ànd di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu saxal ñu ci siraatal mustaqim noo ngi ñaan yàlla mu defal ñu jàmm ci àdduna defal ñu ko yowmal qiyaam defal ko mboolem jullit والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته